en cinq minutes pour la presse écrite, il faut développer en français. Cela vraiment de, de rendre compte Mais pour les télés les radios, c'est en général 1 minute 52 minutes qu'on vous donne.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 ah il faut fetal la xale yi eh, seen waajur yi téye seen professeurs yi leen di génne am nañu ko ci de professeurs yi yu yu yu rakkaaju di génne seen seen seen élèves yi ñu wàcc ci mbedd mi boo gisee image xale yu ndaw 10 ans 13 ans 15 an ba ñu ci sax xale yu ndaw lañ ngi song ay alkaati ba jëlee ci dee xam nga ne loolu ñaaw na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 bu loolu weesoo ma gërëm waa Hann ji gërëm bi ñu taali sama kër ji ma jàppale di wax ni man li ma jot ci message ci Sénégal man xamoon senegal nii lañ ma bëggee fan yi dañ ma téléphoné téléphoné téléphoné téléphoné nekkate man lu ma doon def ci Sénégal yi war naa ko dolli nekkate lu may xaru di defaan ñu mel ni Adji Sarr te ñu ñaar dërëm yu ma fayee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 jàppale la loolu képp du ko weddi dërëmu Bamba Fall maire de Médina masuma koo lekk maa ngi moom ba mu génn kaso dërëmu Barthélémy Dias am nay moyen ñaari yoon masuma ne maître kat 500 francs bi maa la ko yóbbante wala sax mu def benn boisson ni mais sonn nga ci procès bi naan la boisson bi kon wutuma dara ci ñoom Khalifa amoon na ko masuma jox ñaar dërëm